jërëjëf bismillaahi rahmaani rahiim di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di am mbégte bu rëy te teew ci bés bu màgg bi nga xam ne tey waa Kër Allé ñoo ko ci nga xam ne mooy tam inauguration daara ji nga xam ne Serigne Cheikh Mbacké moo ko jiite. di nuyu nag kilifa yi fi teew yëpp sama wax bi ci gudd. waaye sant kàddu yi ma yëkkati kàddu cant lay doon ak kàddu félicitation lay doon ci li nga xam ne mooy sëriñ bi defal fii ci dëkk bi nga xam ne mooy suñu dëkk di Kër ale di ko nuyu sëriñ Cheikh ñu lay nuyu bu baax nga sant bu baax di la gërëm su ko nuyoo ñu dinaa ci bàyyi fi teew baax di la gërëm di wax ne li nga def ñu da cee kontaan. ci fierté bu mag parce que jàpp nañ ne lii dañ ko dekkal mu jëmoo bisu bu réer na sa maam sëñ Ibrahima Silla moo nekkoon fii saf daara ji ànd ak ko ak suñu baay bu baax bu Alaaji Maama Dieng dañoo dekkalaaloon fii ci kër aada ñu suñu fierté la te ñu sant baax na ci gërëm di yi fi nekk yëpp di ñu représentant maire bi Ñaaxeen parce que commune bi commune Ñaaxeen la nuyu tous les responsables yi ànd tey ci délégation bi ñoom ñu ngi nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm. dellusiwaat nag ci daara ji bu baax su ma ci dellu seen nag balaa ma cee dugg sant El Hadj Papa Dieng bu baax ndax coow li coow li man moom la. te su ma mënee ñëw kër aada tey ba di fi am tey sañ sañ di fi wax ñu ngi def kàddu moom mii ma ko waral. ndax doon jël ndox lu ma am ak mu mën. ba am doole tey ko sama loxo fii ci daara kat àlle moom mii moo tax ma mën ko kon maa ko nuyu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi mu loolu téeméer te mu mën rek ak yàlla mën na ko ëpp déwénee ci barke Seydina Muhammad ñun nag wax ci kër àlle man day yomb ci man parce man fi laa te fi ma sama fierté di nuyu jigéen ñi bu baax di leen sargal di leen remercier di leen féliciter parce que nag. ci bi ma toog tey fii ci kër aale ma nekk ndeyu jaara ma leen ko delloowaat delloowaat naa jigéenu kër aale ndeyu daara jaara ji nga xam ne daara yi kër aale wax nañ ko léegi tabax daara kese taxul ñuy li ne ci biir daara ji moo tax ñuy wax daara li ne ci biir mooy njàngale bu fi njàngale li ne ci biir mooy cet gi mu laaj taxawu xale yi jàppale leen accompagner leen ba yaram leen fi yar ñu mën a nekkee ba ëllëgëm si bu ñu nekk ay ñoo xam ne dañu respectable te loolu nag yéen di ngeen di am ngeen ci wàññi bu baax a baax pour ñu leen delloo wàcceel boobu ci ngeen jàpp ci daara lu ngeen mën ak lu ngeen am ngeen dugg ci daara bu jàppale sa bi sëriñ bi nag li nga def ñu nga ko defal ñun ñëpp nag kër aale moom def naa lu baax fi lu baax ñu am nañ ko lu baax ñu def nañ ko fi waaye li mu defal mënuñu suñu bopp nga ñëw bàyyi sa lépp ñu dëkk ak ñun ba pare jàppale ñu nag ci suñu njaboot dina sa jàngal saxal seen ñoom diine ak lislaam yar leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqiim amul sa fay kon ñu ngi lay félicité encore une fois di la remercier encore fois di nuyu nañu ma àndal yi kenn man ànd ak fii kër aale kon maa ngi ko nuyu ma tëdd ko baax di ko gërëm di sant honorable Diakhou Ndiaye moom tamit dëkk Ngaye di seen doom doomu Kajoor ànd ak man ànd ak une forte ma di nuyu Adja Fatou moom tam maa ngi ko nuyu jóge département Tivaouane ko nuyu moom tam ànd ak jaxu ak ñu waa jaxu àndal ñëpp kon maa ngi sant bu baax di leen di nuyu bu baax honorable tamit sama chargé de mission le ministère de la femme ak Thiané Dieye tam di kenn ci ma ci commune Grand Dakar kon ma ngi am contenté di am fierté di ñaan yàlla suñu borom dara ñu fi def li ci yéen ak li ci bëgg yàlla ko yàlla eggale di ñaax nag waa kër ngeen ci bu baax a baax a baax ba ñu am ci nag lu kawe suñu njort ndax bëgg waa Kër Allé fii ñu fi am tey di wàcc a doomu Kër Allé parce que loolu tax daara bu daara ji nekkee Kër Allé te doomu waa ba am xam-xam ba mun fee génn kenn daara ji am na suñu njëriñ ay doom nga xam ko fi yéen ñu bëgg ngeen jàng yéen seen doom am xam-xam ba ëllëg si bu fi génne ñu am seen njëriñ seen njëriñ njaboot seen njëriñ yéen kon ngeen jàpp seen doom bi bu daara jàppale ñu mën a jàng loolu am solo la kon sëriñ bi dama sama kàddu foofu nga de baax di la gërëm di wax ne day ñu kontaan nañ ci am fierté ci yow sa taxaway ci fi ci dëkk bi waxuma jàngale bi waaye de changé parce que ko changé mooy yar bi nga indi ak teggin bi ak inclusivité bi boole ñëpp lu bàyyi defal ko sa loxo ci biir kon ñu sant baax di la gërëm ci loolu ñu am sa fay yàlla ñu am sa fay yàlla la yàlla fay ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la nag bu baax a baax ñaanal ak bu baax ndax nag kër aale mu ñëw bésub mu réer sa baay alaaji maam def na lu ci kër aale waaye def ko fi lu ne yow it ndax man lu ma def kër aale yow ma def ko lu ma mën yaa tax ma def ko waaye ma mën ko kon su ma fi defee dara rek mii laa ko defal te yow gàcce ngalaama fi nga dëkk gàcce mbaalaama ak waa Kajoor dafa nga ne loo mën a loo am def ko fii bu fi ndox ñëwee yow la bu fi courant ñëwee yow la bu fi jàkk ñëwee yow la lu fi waay am rek yàlla yaa ko njëkk a dégg si sa dëkk man su ma dee ñëw kër aada yaa fonk waa kër aada ma ma fi ñëw soo ma fi a na yàlla defal jàmm yal na yàlla yokk yal ma xam sa fukk am na ñoo xam ne seen jabar xam seen laa dëkk fi laa tabaski fi fi laa def sama lépp ku ma xam dëgg kër aada te loolu ñoom nii la sa fierté bopp ak sa taxawaay sa askan am sa moo tax loolu ma doxee noonu kon ñoo ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla jàppale jàppale waa Kër Allé yëpp du man daanu ma ci gërëm ma général maam Thierno Dieng ci dëkk bi am na ko ba ne daara ji santé dañuy faj waa daara ji ma ko waa ñun de général moo ñuy faj ñun ñun général en médecine ñu ak docteur ndaw faj ñu de ñun général moo ñuy faj professeur agrégé en médecine moo ñuy faj kooku mooy maam Thierno fi dëkk bi bàyyi fi dara lépp la fi def bés bu ne wàccee fàcc waa dëkk bi fàcc waa Kajoor yëpp man nag muy kenn ci man ma ne ko damay dem ci bés ba fii fi ne xaalis bari jox ma ko ne ma demal ko daal loolu def man joxuma kenn yow laa ba li mu yéene ci kër àll day bàyyiwu dara moom tam di dëkk bi xam waa dëkk bi moo ko xam boppam am fierté tam ci dëkk àll kon ñu sant ñëpp nag su ma sante ñoom ñaar nag doomu ci wàkk àll ba sant xale yëpp mu beral nag mention spéciale Mbaye Diagne aussi taxawaayam moom tam ci dëkk bi taxawaayam ci daara gi taxawaayam ci lii sant na sama doom yi parce que ñoom ñu ngi def bopp lañ ko parce que waa dëkk bi lañu fi lañ juddoo fi lañ màggee kon ñu ngi daane sama kàddu la di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax yàlla yàlla may teel ko déwén ñu fi ñëwaat yàlla seen bari am toogu yu bari fi nekk daara moderne boo xam ne nag dafay nekk a travailler ci Sénégal parce que mun naa nekk à son excellence monsieur le président de la République mu jëm Sénégal mooy dafa ne daara yi ñu ngi seen cër dañu jàppale dañu leen dañu ba xale yi nga xam ne nekk daara yi moom itam ëllëgam si biir ñu mën am métier mën delluwaat dafa seen askan kon ci dox ak boobu la ñuy dox kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp ñaan yàlla suñu borom yàlla na def Sénégal